sant Oustaz Jibril léegi rek lañu o sant nañu ne dafa bëgg ñu waxtaan ci maxtalu Seydina Ousseyn waaye nag buñ commencé direct rek ci ray gi waaye nañ nettali fitna ba fa mu jógee man nag fi may commencé fitna gi mooy ci wilaaya Usmaan ibnu Affan danaa tudd ay dëkk ci wilaayatu Seydina Omar ibnul Xataab jamono Seydina Omar dëkk yi may tudd ci benn dëkk bu ci nekk am na kum fa tegoon waaye daan sirwaye na ngay doxalee ca fam la teg amoo droit it dogu ci dara ndara bu dang ci diisoo ak Seydina Omar ndax xam ngeen ne uute bi doxoon ci diggante Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ci keroog bi nga xamee ne Xaalid rey na Malik ibnu Nuwayra Seydina Aboubacar dafa waxoon ne moom bu sampee ab waali wala mu teg ab qaadi wala mu yebal ab qaidul jays kooko mu samp dafay àtte ci muxtadal aal ba mu nekk Seydina Omar gis ne déedéet kooku warta dogu ci dara ndara bu dafa ñëw ci amirul mu'minin ndax jullit ñi benn njiit lañu am te loolu su yàggee mën naa nekk ay njiit yu tàqale ko kenn ku ne gis sara yu bopp loola tax Seydina Omar ca Makka mu tegoon fa ku ñuy wax Naafix ibnu Abdul Aarish al Qusaa'i boo demee ca taif mu tegoon fa sufyaan ibnu abdullahi as-saqafi nga dem kuufa gii nga xam ne tey li ñuy waxtaane lu ëpp ca lay nekk tey mu teg fa ki ñuy wax muxayratu bnu saabin boo demee ca yaman ca sanha mu teg ca yaala ibnu munya nga dem basrata mu teg fa aba musa al asari abu musa al asari mii nag eh, dina am dawru bu am solo buñ ko tudd ci waxtaan wi tey biñ demee misra mu teg fa amar ibn al aas moom itamit ba tey ca hims mu teg fa umayr ibn saadin ca dimisqa ca la faloon muawiya kon bés leen seen baaraam dimisqa bii mu faloon muawiya ibn abi sufyaan waaye falastin mu ngi fa faloon abdurahman ibn alqama waaye bi mu falee muawiya dimisqa yasid ibn abi sufyaan daf ko faloon ca ordon bi nga xamee ne Yasiid génn na àdduna mu boole diggante Ordon ak Dimishq yépp fal fa Muawiya foofu tamit bu ngeen bësee seen baaraam da ngeen xam lan moo tax nguur ak mu Muawiya am dëgër wala Muawiya dem ba am sañ-sañ bu toll ni samp ci kanam Seydina Ali di xaccoog moom xilaafa gi da ngeen xamit lan moo tax mu am sañ-sañ ak doole ji toll ni samp doomam Yasiid ibnu Muawiya mi nga xam ne mboolem problème bi ñu war a nettali tey ci moom la jógee buñ demee ca Palestine Seydina Omar am fa tegoon Abdurahman ibnu Alqama ca Bahrayn mu teg fa Ousmane ibnu Abil As waaye nag bi Seydina Ousmane ñëwee dafa sensé loolu lépp changement yi Seydina Ousmane sensé nag moo tax coow li fitna bu mag bi yépp mu ngi dalee ci deewuk Seydina Ousmane ibnu Affan euh, su ko defee kon mbir màngook ca Kuufa buñ demee nag ci Misra ndax dafa am dëkk yoo xam ne wax naa ne dañoo nekkoon dëkk yu mag ci lislaam bu ñu demee misra itam la fa seydna omar ibn xataab bàyyi woon ndax omar ibnu omar ibn al aas la fa faloon waaye bi nga xamee ne ousmaan ñëw na wax nañ ne seydna dafa mujj folli kii nga xam ne mooy omar ibn al te omar ibn al aas nag doxalinam ak liggéeyam wax dëgg yàlla rafetoon na ci ak taxawaayam waaye nga gis ne Seydina Ousmane folli na ko fal ki nga xam ne mbokk la ci moom di mbokk moo xam ne e, gannaaw yàlla am na sax jullit ñoo xam ne dañoo meroon ci fal gim ko fal misra ñu ko daan wax Abdullah ibnu abi Saraa muy Abdullah ibnu Saadin ibnu abi Saraa nga xam ne fatxu makka yenentu bu taxutoon ak li nga xam ne Seydina Omar Ousmane daf ko garanti woon yenentu dana ko rey wala mu rey lu ko waaye Seydina Ousmane moo ko garanti woon ndax moom mooy ki ngeen dégg ñu di wax ne moom Abdullah ibnu Saad ibnu Abi Saraa mi moom dafa nekkoon ci diina bokkoon ci ñi daan bindal yenentu bi wax yu mu gi mu dal di murtat wax na ne sax yenentu bi sallallahu alayhi moo waxoon wax ju ñaaw jooju na xàmmeewut xarafu nàngam ak nangam lu ma ko bindal rek baax na loola nag taxoon na ñu bëggoon koo rey ci loola bi mu ko falee nag ci misra wax ko ne ko léegi nag nanga nga xaree dugg biir Afrique waaye defal naa la lépp loo gañe rek da ci am cinq pour cent walla xumus ba yow yaa ko moom léegi nag départal nga dem foofa it fa lañ gisee Abdoulaye ibn eh, ibn Abi Sar'i mi jiite lël boo xam ne ñëw na dugg ci wilaayatu jàmbur te tàgguwuñ borom wilaaya ba waaye amut ci ndigal lañ xamoon ci jamono bépp wilaaya boo xam ne am na kuñ fa sampu la ñuy dox ci ndigalal xeex wala nangam ci loxoom lay jaar waaye lii Seydina Ousmane daf koo def diisoo wut ci ak waal yi ba fa nekkoon muy Amar ibn al yàlla def nag bi abi sarai dal di am ndam lu am doole lool ba mu jëlee alalam ja wax na ne Seydina Omar daf ko defal bisaara ca la ci des jox ko ko mu nekk alal ju baree bare bari mu nekk nag koo xam ne taral na nit ñi ci Misra sonnal leen lool ba nit ñi di ko jàmbat Seydina Ousmane ci sonnal koo xam ne sonnal na leen ko waaye daal ci gàttal foofa gis nga ne waaye Misra kon mer nañ comme ni waaye Kuufa meree waa Kuufa la leen tax a mujj mooy taasub al asabiya gi nga xam ne Seydina Ousmane dañ ko nemmeeku ci nguuram waa Misra li leen taxamer mooy loolu ak tasaddud bi nga xam ne Abdullah ibn Abi Sarham mu ngi koy def ndax gannaaw bu mu gañee ba ñëw Seydina Omar ibn al dafa folli kii nga xam ne moom mooy Amar ibn al fal ko mu nekk koo xam ne moo mooy doxaleeg léppam ca Misra buñ demee ci Saam nag. dinañ gis ki nga xam ne moom mooy Muawiya ibn mu Sufyan Muawiya nag moom waxoon naa leen ne nguuram dafa yaatu lool lan moo tax mu Muawiya am sañ-sañu doole ju toll nii samp ak xilaafaam ci kanam Seydina Ali ibn Abi Talib kon Muawiya nguuram ci saam boo gisee mu dem ba am sañ-sañu doole taxaw ci kanam Seydina Ali li ko def mooy lii may tudd nguur gu yaatu ak am doole lool ak yàgg ca ndax Seydina Omar moo ko sampoon bàyyi ko Dimisqa jël mbokkam Yesid ibnu Abi Sufyaan bàyyi ko ca Ordon bi Yesid génne àdduna mu jël Ordon tàppe ko ci Dimisqa jox lépp Muawiya nguuram gën a yaatu waaye tamit ku ne xam na ne Muawiya doomu bàyyi tax la ci kii nga xam ne mooy Usmaan ibnu Affan looloo tax mbiram daf ko yokk waaye wàññiwut ko gannaaw si nga mu folli Abdurahman ibnu Alqama mi nekkoon ca Palestine jëlaat foofa dolli ko ci nguuru Muawiya gannaaw si gi Seydina Usmaan folliwaat na Umayr ibnu Saadin al Ansaari ca Hims dolliwaat ko ci nguuru Muawiya lii moo tax nguuru Muawiya amoon doole lool ba jéggi dayoo atem nag demoon ba toll ci waa saam bëgg ko lool am na ñu dem ba wax ne sax bi Muawiya nekkee saam Seydina Ousmane nekk Medina dafa meloon ni ñu bari ci ñu daan attewu maanaam wala dafa mel ni lu bari ci lu daan dox ci nguur gi ci loxol Muawiya la doon dox ci jamono boobu ndax bu Seydina Ousmane amaan ay nit ñu ko jaaxal ci bañ a jaayanteeg moom wala mu bëgg a waxtaan ak ñoom ba diisoo am ci ci siyaasiya bu Muawiya amoon daf leen di ebal ci Muawiya Muawiya nag ñaare kum mënut dara rek su boobaa Seydina Ousmane da ngay gis ne bu bu nee nañ ko dàq rek dañ koy dàq moo tax bëri na ñoo xam ne dañ leen dàqoon génnee leen ci jamono Seydina Ousmane te la doon sabab ba mooy Muawiya moo ko sàkk woon loola xañ na taxu ñoo jóg waaye dañ ciy tudd tuuti rek kon nag Muawiya ngoog ca Saam buñ demee ca Basra nag ki fa nekkoon mooy Abu Moussa al Asari mi nga xam ne xam ngeen ne lool mag la woon ci magi saxaaba yi Seydina Ousmane nanguwut ko woon a folli waaye gannaaw si gi la nit ñi nekk ci seeni wax ba Seydina Ousmane nangu ko folli ndax dañoo wax ne dafa am benn waay boo xam ne moo ñëw ci Seydina Ousmane ne ko yéen de yéen a ngi bàyyi kii nga xam ne mag la kanaa amuleen koo xam ne ndaw la koo xam ne su ngeen ko falee moom dana mën a uutu kii nga xam ne moom mooy Abu Musa al-Ash'ari te nekk ci Quraysh dégg nga wala boog mu bokk ci uma yi uma wi banu uma ya bokk Quraysh ba pare bokk ci dégg nga nekk uma wi ñu ne kooka mooy Xaylaan ibnu Xarsa moo ñëw dal di wax loola ba Seydina Ousmane dal di folli ki nga xam ne mooy Abu Moussa fal doomu tàntam ba benn doomu nijaayam bu ñuy wax Abdullahi ibnu Amir dégg nga ibnu Karis nga xam ne biñ koy fal booba ñaar fukki at ak juróom rekk la am ñu folli abu musa al asar yi fal ko léegi nag kon dëkk yépp mer nañoo ndoor ba mu def saam lii nag mooy sababu ñu def ay kuréel dégg nga bind lettre Seydina Ousmane ne gaa ñi ni ñuy doxalee ci nguuram ñaaw na bu fa ko mënee fekk baax na bu ko mënta fekk ñoom danañ ñëw attaqué si ko bi loolu amee nag gaañi seen ak mer ñu ñëw jàmbat ko wax nañ ne Seydina Ali ibn Abi Talib ñëw na wax ak Seydina Ousmane ci xitaab bu am solo wax ne ko ne ko yow Ousmane xamal ne ki gën ci jaami yàlla yi ci yàlla mooy imaam bu màndu jub tey jubal taxawal sunna bi ñu xam waaye rey bidaa waaye ki gën a nekk imaam boo xam ne moo gën a bon ci imaam yi mooy imaam bu réer di réerale di imaam boo xam ne dafay dundal bidaa lii nag am na ñu ko gisee ne moom bi muy wax daf doon attaqué Seydina Ousmane waaye déedéet ndax su fekkoon dafay attaqué Seydina Ousmane konoon ni mu doxalee gannaaw bu mbooloo yegsee du ko def wax nañ ne Seydina Ousmane sax gannaaw si gi fësal na wane naa dëgg-dëgg ñi nga xam ne fal naa leen ci aqaalim yi taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy def ak taral yi naq dina nit ñi Ousmane dal di leen dajale ngir wax ak ñoom am na ñu ne def leen bind ay leetar <clears throat> ku mel ni dégg nga Saïd daf leen bind ay leetar ku mel ni eh, Abdullah ibn Abi Sarah ñii ne déedéet gannaaw boo xamee ne wax na ak ñoom la mu wax ak ñoom ba noppi ñoom dañoo continuer ca lañ nekkoon waaye bàyyiwuñ mbir ma nag gën a métti lool caatum fanweer ak juróom nag ci la ahlu kuufa dal di mer ci seen aakim bi nga xam ne mooy Saïd dinaa tudd kuufa ña fa nekkoon waaye loolu ci beneen audio laa koy tudd insha allah ñu ne nag léegi liñ bëgg daal mooy nañ leen indil abu musa al ashari fal leen waaye lii nga xam ne mooy am Seydina Ousmane di ko doxalee ak ñim nekkal neexul leen Misra moom itamit lu mel noonu am na fa gannaaw si nag nga gis ne mboolo yi bari daje am na ñu ne Seydina Ousmane dafa yónni benn xale leetar waaye bi muy yónni xale leetar bi gaa ñi jàpp ko ci yoon bi gis ne xale Seydina Ousmane la ñu nangu leetar bi fekk ñu ne Seydina Ousmane daf ci bind ne boo mbooleem koo xam ne dafa bañ lii ma nekkee wala mu nekk koo xam dafa dëdd suma xilaafa na ngeen ko rey biñ ñëwee nag Seydina Ousmane dafa wax ne loolu moom defu ko gannaaw si nag si la ko gaañ attaqué ca la ca xew na ngeen ko xamee yéen ñëpp rey ko rey bu ñaaw fekk mu ngi tiim kaamiru alquraanam mu dee nekk koo xam ne ku sayid la fi na nag judd na léegi nag naa Ousmane génn na àdduna kon léegi tey rek ma yegg ci ci mbir mi Muawiya samp na ci kanam naa Ali Seydina Ali yu ngi taxaw dégg nga mu nga ca Kuufa mbiram maa ngi taxaw waaye say eh, Muawiya ibn Abi Sufyaan mu ngi ci saam taxawal ak mbiram loola dox ci seen diggante Muawiya gis ne moom balaa ñuy fal beneen xalifa gannaaw bu Ousmane gaañoo dañoo war a leeral deretu Ousmane loola nag am na boroom xam-xam yu ko jàngatee ne ijtihaad la boo xam ne ab jullit def na ko fa in asaaba fa lahu ajraani dégg fa in axtaa fa lahu ajrun waahid bu fekkoon ne dafa jubal am na ñaari yool <coughs> bu juumee am na benn yool ñu ne Muawiya dafa def ijtihaad juum am na benn yool Seydina Ali def ijtihaad jubal kon am na ñaari yool la dox seen diggante nag ba yàlla dogal ñu rey Seydina Ali ca masjidu Kuufa kon Kuufa gii fi lañ reyee Seydina Ali kuufa gi ci lañu war a waxtaane tey ci li ci xew ci leetar yi nga xam ne doon nañ ko bind Husayn ibn Ali léegi nag Muawiya nekk ci xilaafaam gannaaw boo xamee ne Seydina Ali ibn Abi Talib rey nañ ko ci pexe moo xam ne xawaari yi ñoo ko tëraloon foofa duma ma fa guddal waaye Muawiya ibn Abi Sufyaan ku mel ni Xasan di mag ci Xusaynu taxaw na taxawaayu baayam mbooloo mu bari ànd ak moom biñ demee ba ñaari kuréel yi jàkkaarloo Seydina Xasan dal di def musaalaxa ci digganteem ak mu Muawiya ngir bañ deret tuuru loola nag am na riwaay yu bari yu wadd wane na tagg la ñeel Xasan ndax li tax mu nekk tagg ñeel ko mooy yonent bi moo waxoon ne sama doom ji yàlla dana ci defaree ñaari kuréel yoo xam ne buñ tàmpoo nga wante woon dara ju bari dana tuuru ñenn ñi nag di ko xasee Seydina Asan tuddee ko ab tàppet ba kàddu yu ñaaw yu bari wadd na ci yenn boroom xam-xam yi gis ne yonentu dafa waxoon ne alxilaafatu min baadi sama nguur sama gannaaw fanweeri at la li ca tegee nag mul ko udduut lay nekk mooy nguur goo xam ne ay tooñaangee ciy bëri ñu ne juróom benn weer yiñ jaayante ak xasan moo mottali fanweeri at yenent bi sallallahu waxoon looloo taxit yàlla bañ a dugal xasan mu nekk ci mulku hudud looloo tax mu mujj jébbal mbir mi mu muawiya waaye duut ne dafa jaayantoon ak muawiya muawiya nag continué ak dundam dem ba yàlla def mu génn àdduna mu samp doomam bu ñuy wax yasiit ibnu muawiya bi mu sampee Yasid nag diggante Yasid ak Xuseynu am na lu ca dox ndax Yasid eh, dégg nga Muawit ibn Abi Sufyaan bi mu sampee doomam ñi nga xam ne mënoon naa fexe ci kibaaru saxaaba yi ñu jàppale ko ba jaayante ak doomam def na ko ñi mën a neexal ci ay nit mu neexal leen ñi mën a forcer ci yi mu forcer leen waaye teewut am na ñoo xam ne dañoo bañoon ne nguur gi loolu du am nguuram nag nguur la goo xam ne mboolem nguur yi moo ci gën a bari gaaf moom nguur Yasid ndax ci nguur Yasid la xew biir Madina ca la xewoon ca biir nguur Yasid li xew Makka ca la xewoon bi ñuy attaqué Abdullah ibnu Zubayr ba yàlla def am lenn ci lañ doon sànni ci ay mbir mu daal ca kaxaaba ga bañ lakk kaxaaba gi loola ci nguuru Yasid la amoon ci nguuru Yasid nag moom ci jëmmi boppam moo bind leetar bi mu bindee leetar ki nga xam ne moo nekkoon ca jamono booba ca Makka ca Medinatul Munawara muy Walid ibnu Oqba mu dal di ko bind leetar dal di ko wax ne ko leetar bii ma lay bind daal mooy na nga jël Husaynu ak Abdullah ibnu Omar ak Abdullah ibnu Subayr ñu jaayanteeg yow jaayante gu tar lam bind ca leetar ba mooy gannaaw bu mu ko yoo mu ne ko faqus usaynan wa abdullah ibnu omar wa abdullah ibnu wa abdullah ibnu bay'a aqsan sadidan laysat fihi ruqsa xatta yubayihu wa leetar booba dem mu toftal beneen leetar ci gannaaw leetar booba xamal ko ci na ko fa kitaabi haada fa xajjil alayya bi jawaab yi lettre bii may yónnee muy deuxième lettre bi bu yegsee nag ma gaaw a tontu mu ne su ko defee wa bayin lii fii kitaabik kullu man fi taati aw xaraja mboolem ku ma nangul na ko bind mboolem kuma ma bañalit na ko leeral foofa ci Medina mu ne ko bëgg naa boo may yónnee jawaab bi nga boole waale ci boppam xuseynu ibnu ali indi waaleel ma ko nga xam ne rey booba nag ci la walid ibnu utba dégg nga euh, dal di dem diisoo ak marwaan ibnul akam bi mu diisoo ak moom ci loola maraam na ko waaw léegi na nga dem waxtaan ak xuseyn nga dem waxtaan ak ibnu zubayr nga waxtaan ak ñoom waxtaanal ak abdurahmaan ibnu abi bakar mën naa am boo waxtaanee ak ñoom ñu jaayante ak yësit bi ñëwee wax leen Seydina Useyni ne ko ku mel ni man doo ko oo ci ab ruq rek ne ko jaayanteel su ma bañee nit ñi duñ ko xam su ma nangoo it du la jëriñ dara dangay ngay dajale mbooloo mi foofa nag la dajale mbooloo mi Seydina Useyni fësal na moom du jaayante mukk ak Yasid ibnu Muawiya léegi nag loola mooy sababu mu génn Medina dem Makka kon Oustaz Jibril Ousseynou ngi préparé war a génn Medina dem fi nga xam ne mooy màkk balaa muy dem nag am na benn rakkam bu mu fa nekkat nga xam ne bokkuñ yaay waaye Seydina Ali yoo ko jur muy Muhammad ibn Hanafi am na lu mu ko dénk euh, bu ko defee Seydina Useynu ngoog préparé na pour génn Madinatul wara sababu nag lii génnam dana ko wax ci ndénkaaneem bi nga xam ne dana ko dénk rakkam ibnu anafiya muy wasiya boo xam ne bu siw la bim demee ba pare pare dem siyaare ji xabru magam Xasan jógee fa dem ci xabru yaayam jógee fa dem ci xabru yonent bi sallallahu alayhi wax nañ ne ñaari fan la fa def di fa fanaan ci xabru yonent sallallahu alayhi bi mu dogoo dem gi nag dal di bind gannaaw bu mu waxee bisimillahi rahmaani rahim gannaaw bu mu sante yàlla julli ci yonent bi ca lettre ba mu ne haada ma awsa bihi al usayn lii mooy lu usayn ibni ali ibnu abi talib dénk mbokkam muhammad ibnul anafi al maaruf bi ibnul anafi anna usayn ibnu ali yashadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anni lam axruj asaran wala bataran wala mufsidan wala zulman wala zaliman innama xarajtu li talabi islaahi fi ummati jaddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko maa ngi lay dénk bokk na ci suma wasiya seede naa ne yàlla kenn la yenentu sallallahu alayhi wa mooy yenentum génn gii may dem nag du ak fetteerlu du ak yàq du itam ak tooñaange waaye damay génn jaar ci yoon wi suma baay jaaroon Seydina Ali ak yoon wi suma maam jaaroon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy digle lu baax di tere bon dinaa dox ci loola képp koo xam ne nangul nga ma ci yàlla rek tax nga nangul ma ndax dëgg mooy yàlla ku ma bañal itam yàlla nga bañal waaye su boobaa danaa muñ ba yàlla yeggali mbir mi fi mu ko war a yeggali lii la wax ak moom daldi di préparé bind ko ci leetar kayit jox ko ko dal di takk bagaasam yi wara a génnee fii nga xam ne mooy madinatul munawara gannaaw boo xamee ne amir bi oo na leen ngir ñu jaayante ak yësiit mu bañ na du jaayante ak yësiit mu war a déparé fii nag dem Makka lan mooy sababu dem ak Makka ca Makka it foofa la jógee ci ay leetar yu joge Kuufa di ko ñëwal ba gannaaw si gi mu dem uyu ji leen ci lañ ko rey kon Oustaz Jibril loolu mooy tomb bu njëkk bi insha allahu rabbi waaw euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi doon déglu Oustaz Jibril ndax daf ma waxoon ne su ma ñëwee ba ci fii Xuseynu di waajee ma taxaw xaar bu dégloo audio yi seet lum ci laaj bu ko amul ñu doog continé xam naa ne maa ngi koy xaar kon incha allahu rabbi bu ñëwee rek e, ma dal di continuer beneen tomb bi ci des mooy dem ak Seydina Ousseynou ca Makka sababu jógeeyam ca Makka dellu ca Kuufa ak ña ko doon woo ak la xew foofu la ca Karbala incha allahu rabbi waxtu bu Oustaz Jibril ñëwee rek bu ma defee siiñ fekk na ma pare incha allahu ma ñëw continuer ci loolu waaye comme daf ñoo taxawlu woon ci buñ demee ba ci départ bi mënuñoo def lu dul taxaw fii. waaleykum salaam Cheikh Sa Jibril waaw sababu génnam moom mooy dafa buggoon a génn Medina dem Makka ndax xam nga coow li dafa bëri woon Medina lool dana jaayante wala du jaayante te itam respect bu mu amoon ci barabu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak it rey fa nga xam ne rey nañ ko fa magam. Eh, ci rey gu xaw a doy waar ak it maanaam jaayante gi ñu leen bëgg a jaayanteloo ak Yasiid te ñoom ñëpp ñu xam jikkoom te nanguwuñ ko ñu bëgg leen a foofa te mën naa jur leneen loolu moo tax mu jóge woon foofu waaye leeral na ak demam wane ne bi may dem kat sama bëgg-bëgg yépp mooy digle lu baax tere lu bon dox ci yoon wi suma baay doon dox dox ci yoon wi suma maam doon dox képp ku ci ayu alhamdulilah uyu nga yàlla waaye ku ma bañalit man ma jëb ma muñ ci yàlla ba lépp lu yàlla namm sama mbir rek ma xam ne loolu la kon loolu moo doon sababu génnam njëlbeenu génnam nag màkk la jëm ba mu demee màkk nag def fa ay fan ci la lettre yi commencé jóge ca Kóofa ndax waa Kóofa dégg nañ ne Xusaynu kat ibnu Ali jaayantewut ak Yésib ñoom itamit comme baayam amoon na fa doole leen ci kuréel ba àndoon ak baayam ak ñeen ñi d'accordu toon ak Muawiya ak doxalinam d'accorduñu woon it ak Yasiid doomi Muawiya ñoom ñu préparé pour jaayanteek moom commencé di ko bind leetar gannaaw si gi nag la jogee foofu ngir dem jaayanteek ñoom ca Kuufa ndax comme ni ko baayam bëggee woon ndax xam nga ne Seydina lii dafa amoon bëgg-bëgg toxal maanaam lii nga xam ne moom mooy nguur gi nguurul islaam eh, jëlee ko fii nga xam ne mooy Medina waaye yóbbu ko kuufa loolu nag ci ay idda iddatu asbaab asbaab yu bari la xëy na lim ko du mën a nekk tey booba nag la dal di nekk makka bi mu nekkee makka def umraam ba pare booba la waa kuufa yëg ne kii nga xam ne mooy Husayn ibnu Ali jógee na Medina ngir bañ a jaayante ak Yasid ibnu Muawiya ñu ne ah kon lu tee bañ bind ko leetar mu dell ci ci baayam bi ndax kuufa fi la baayam amee woon doole jamono bi ko muawiyatu ibnu abi sufyaan di song kuufa fi lañu rob baayam ndax ci jàkkaay kuufa ji ci lañ ko denc mu ne kon ni ñuy def mooy nañ ko oo suñ ko oowee mu ñëw ñu dal di jàppalanteeg moom def ko mu nekk suñ amir ñu dal di daje ci benn kër gu ñuy wax kër Suleymaan ibnu Sard ñu bokk bind leetar ñoom ñépp ñu dëppoo kenn bind ñu nuyu Seydina Useynu na ko jot nañ ne dangaa bañ jaayante ak Yasiid ibnu Muawiya jot nañ ne it a jaayante ak Yasiid moo la tax a génn Makka Medina ñëw Makka dañoo bëggoon na nga yegg ci ci ñun ndax innahu laysa alayna imaamun fa aqbal ala allah an yajmaana bika ala alxaq buñ sañoon daal nga ñëw amuñ kenn ku ñu jiite bu ko defee nga jiite ñu biñ jëlee lettre booba dal di ko kaste jox ko benn waay bu ñuy wax abdullahi ibnu musmeh al imdaani jëlaat beneen leetar dal di koy kaste jox ko Abdullah ibn Wail ñoom ñaar ñu génn ci yoon wu gaaw jëm ci makka ci ki nga xam ne moom mooy Xuseyn ibnu Ali loola mu ngi nekkoon ci fukki fan ci weeru koor bi ñëwee Seydina Xuseyn dal di liir leetar yi waxut kenn dara dal di denc leetar yi waa Koofa biñ toogee ñaari fan dégguñ dara ñu dal di dajeewaat bindaat leetar yebal ku ñuy wax Qays ibnu Mazhar ak ki ñuy wax Abdurahman ibnu Abdullahi al Arhabi ak ki ñuy wax Amaarati ibnu Déng Xabidu ñu dal di leen yebal kenn ku nekk ci ñoom lam gàddu ci ay téere maanaam lam gàddu mat na juróom fukki papier yoo xam ne ñu ngi ca bind ay turi góor ak turi jigéen wane nañ ñi ñépp pare nañ pour ànd ak yow Husayn ibnu Ali ngir nga ñëw bañ demee Seydina Husayn jotaat lettre yooya jàngaat lettre yooya dal di noppiwaat biñ toogee ñaari fanaat ñu daldi di yebalaat aani ibnu aani assabii ak saïd ibnu abdullahi al anafi ñu daldi bind ab leetar daldi bind ca leetar ba ne ñoo ngi lay nuyu bu baax waaye na nga xam ne moom aane na nga xam ne yow naaw Useynu ñun ñépp yow rek la ñuy xaar gaawal gaawal gaawal gaawal gaawal gaawal loo gaaw gaaw rek xeeb nañ ko nit ñi yow rek la ñuy xaar léegi nag lii nga xam ne am na Seydina Useynu taxut mu tontu am nañu ñu ne benn waay bu am xel ci ñoom moo leen wax ne bu ngeen bëggee Seydina nu ñëw nee leen ko xam nga ne nit ñi mënuñoo toog te amuñ imaam bu leen jiite jamono bii ñu toll ñun aw mbooloo lañ wa amul imaam xam nga ne sa maam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy njiiti jullit ñi yépp te moo ko santaane xam nañ ne sa yaay mooy Fatimatu bintu Zahra xam nañ ne sa bàyyi mooy Seydina naa ibn Abi def nañ li ñu war bind nañ la lettre yëg nga ko bu yowmal qiyaamee bu ñu suñ borom laajee danañ ko wax ne ko ñun kat oowoon nañ doomu yenentu sallallahu alayhi wa sallam muy Seydina ngir mu ñëw ñu jàppalanteeg moom waaye dafa bañoon lii moom mooy sababu bi naa Useynu liire lettre bi rek dal di takk laxasam ne faw mu dem ànd ak ñoom wax nañ ne lettre yañ ko bindoon dem na ba mat junnee leetr yoo xam ne ba muy dem dafa paqueté lettre yépp dal di ko dugal ci saak yóbbuwaale waaye lettre yooya dara la jëriñu Seydina Useynu keroog bi nga xamee ne ñu ngi koy rey ca Karbala eh, alhamdulillahi rabbil alamin mbokki waqul jaal xaqu gannaaw bu sante yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa ñu ñëw ci tombab ñaareel bi gannaaw boo xamee ne Seydina Huseyn ibnu Ali bañ na ne du jaayante ak Yasid ibnu Muawiya waaye tamit e, xatal nañ leen ca dëkk ba xatal goo xam ne bañ na fitna am ca dëkk ba benn ñaareel bi mooy bëgg naa jaar ci yoonu maamam ndax alquran daf ñoo wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéenay xeet wi gën ci xeet yi waaye li tax ngeen nekk ko nag mooy taamuruna bil maaruf wa tanawna anil munkar Seydina Useynoo ngi nii nag bind na wasiyaam ba pare léegi nag dogu na dem na siyaara ji xabru yaayam Fatimatu bintu Zahra dem na siyaara ji xabru magam Hasan dem na siyaara ji xabru maamam am ci riwaaya ñu ne def na fa ñaari fan léegi nag mu ngi noonu di génn ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci li nga xam ne moom mooy weeru rajab am na ñu wax leneen lu bokkut ak loolu muy ñetti fan ci saabaan waaye riwaaya bi gën a wér mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci rajab la fa jógee waaye mu nga yegg gannaaw si nag ci ñetti fan ci saabaan ndax juróomi fan la dox diggante ba Seydina Useynu nag bi muy dem mu ngi ànd ak juróom ñett fukki nit ak ñaar ñoo xam ne ñoom ñépp ci aalu bayti lañ ñi doomam lañ ñi ay doomi magam lañ ñi ay mbokkam lañ ñi mbokkam yi jigéen lañ mu ngi ànd ak ñoom pare pour dem fi nga xam ne mooy makkatul mukarram eh, bi muy demit nag bokk na ci ña àndoon ak moom lu toll ci ñaar fukki saxaaba ak benn yoo xam ne àndoon nañu ak moom ci yoon wa ngir ànd ak moom ca la mu nekk Seydina Useynu ngi mu ngi départ bi mu demee ba ci yoon gaa ñi dal di diisoo ne ko mbokkam yi te nga sensé yoon wi bañ a def direct ndax amaana boo jaaree ci yoon wi kat ñu dab la buñ sañoon dee na Abdallah ibn Zubayr yi defoon nga def ko mooy nga signalé gauche jàdd droite mu ne leen déedéet fii ma jaar duma ko wàcc mukk ndara bu yegg naa fi ma jëm wala lu yàlla dogal rek ma gërëm Seydina Huseyn ibnu Ali ibnu Abi Talib mu ngi dem ànd naa ak mbokkam yépp wala li ëpp ci ay mbokkam ba mu des Muhammad ibnul Hanafi ma nga xam ne moom la fa bàyyi bi mu demee nag ba ci yoon dajee na ak benn waay bu ñuy wax Abdullahi ibnu Mutiya nga xam ne borom alal la woon ci borom alal la woon ci arab yi kooku naka la ko séenee mu ànd ak njabootam bergend yaa nga ca topp di dem mu daldi ne waaw ma lu xew Seydina nu ne ko damay jóge fii di Medina taxu dem Makka mu ne ko ah waaw man doo toog dal di wax ak moom ci feeñalal ko ni mu ko mën a jàppale waaye Seydina Useynu booba yoonam ñor na mu ne ko ah, dootuma dëpp mukk bàyyil rek ma dem Seydina Useynu dal di continuer mu laaj ko ne ko foo jëm mu ne ko jamono bii may wax ak yow de makka laa jëm waaye xaw ma nag après makka fan laa jëm ndax damay dox rek yoonu suma maam ak yoonu suma bàyyi digle lu baax tere lu bon ci laa nar a nekk bi mu doxee juróomi fan àgg makka bi njëgg ma àggee makkatul mukarram ñu ne ci ñetti fan ci saabaan la fa yegg ci atum juróom benn fukk ca gàddaay ga mbooloo yu baari daldi ko teeru ñu doon def umraak ñu doon ajak ñépp dal di ko teeru di jotaay ak moom di saafuwante ak moom di jàppalante ak moom di feeñal ak bëgg ci moom lettre ya nag teftale rek di ñëw ci Seydina Useynu net li nañ ne lettre yi dem nañ ba ëpp na junne lettre ñaari junne lettre waaye dem nañ ba mat fukki junne lettre ak ñaar yoo xam ne yépp kuufa la jógee ko dem na ba ñi nga xam ne ñooy waaye kuufa yépp dafa mel ni ànd nañ dajee di xaar kii nga xam ne moom mooy Useyn ibnu Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu ki nga xam ne mooy Sabs ibnu Rabi nga xam ne kenn la ci ñi doon méngoo atteeb banu umaya bind na lettre moom ak xijjaar ibnu abjar ak yasiid ibnu arish ibnu rawim ak urwatu ibnu qaysin ak omar ibnu ajjaaj ak muhammad ibnu omar attamimi ñu bind lettre useynu def ca lettre ba ne ko faqad axtara aljanaab wa ayna asimaar fa ida sita faqdim ala jundin lakka mujannat wa salaam léegi daal mun lañ laa wax ne ci waxi olof lal nañ darab yi ñeel la mun nañ laa wax na meññet yi yépp ñor na dara desul lu dul nga ñëw witti rek lekk léegi nag bu la neexee utal say militaire nga ñëw waaye àndak ak loolu lépp Seydina Useynu tontuwut benn lettre ci lettre yooyu noonu ñu dem ba mu yàgg ñu daal di yónniwaat wax nañ ne benn bés rek juróom benn téeméeri leetar jógee nañ Kuufa ñëw ci ki nga xam ne mooy Seydina Usayn ñu di bindante leetar ba leetar bi mujj a jot nga xam ne Aani ak Saïd ñoom ñoo dajee bind ko daal bind ca leetar ba jéngal lañ ca bind Seydina Usaynu daal di leen tont bind ca leetar ba min Usayn ibn Aliin إلى ملأ من المسلمين والمؤمنين أما بعد فإن عانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم وكان آخر من قدم علي من رسلكم mu ne Hania Saïd mii kat seen lettre yi ñu mujj andi ñoom ñoo ko andi woon Seydina Ousseynou daal di bind ca lettre ba nag tontu leen na leen Hania mii ak Saïd mii ñooy ndaw yi mujj ci seeni ndaw yoo xam ne indil nañ ma ay leetar mu ne leen nag dinaa yebal sama doomu baay koo xam ne sama kóllëre la koo xam ne mu ngi bokk ci ahlu bayti rasul danaa ko yebal su ma ko yebalee bu ñëwee ba ci yéen su ngeen dogoo ànd ak moom ci seen xalaat bii ngeen bind ma ba mu delloo si ma leetar wan ma ne ma lii yéen yépp yéen ci ànd te dëgg la ci yéen su boobaa danaa ñëw ci yéen ayu si leen ci li ngeen may laaj waaye su fekkee ne nag dama dama ko yebal mu ñëw lii ngeen wax dara new ci dëgg su boobaa man duma mën a ñëw ndax booba xamoon na ne Kuufa ci boppam am na ay workat yu bari yu fa nekk te loola li ko seede mooy fañ jaaroon ak baayam Seydina Ali ibn Abi Talib mu dal di yebal muslim ibnu aqil muslim ibnu aqil nag takk na bagaas yi génnee na makka mu nga jëm kuufa ci ndigalu sayidna ali ibnu abi talib ci ndigalu xusaynu ibnu ali ibnu abi waaye tamit ci gëstu ji ci téeméeri junne lettre ak ñaar fukki junne lettre yu xusaynu jot ndax dëgg la wala du dëgg moom su yeggee lam fa fekk loola la war a bindaat lettre yónnee ko ki nga xam ne moom mooy Usayn ibn Ali Seydina Useyni man a dëgg ca loola ndax xam na ne euh, muslim ibnu aqil mi du ko war mukk muslim ibnu aqil yegg na ca dëkk ba wàcc na ci kër muxtaar ibnu abi ubayda dégg nga asaqafi te boobale wax naa ne nu'maan ibnu basir al ansaari mii moo nekkoon buur ba bi gaa yi yégee ne muslim ñëw na ñoom ñépp ñu dal di ci ak muslim ba wax nañ ne ci bis booba lu mat fukki junnee nit ak ñaar ñëw nañ jaayante ak moom wan ko na ko lañ doon wax Seydina Huseyn loolu dëgg la waaye xabar bi nag daldi yegg ci ki nga xam ne moom mooy xalifaab umawi bu mag ba mooy ca Kuufa muy Nu'maan ibnu Basiir yéeg ne gaa yi kat jaayante nañ ak Seydina Huseyn benn waaye ñëw ci moom ne ko boo yéexee beneen xalifa dana am fii ci Kuufa beneen waali dana fi am mu ne ko la xaw mu ne ko benn waaye ngi nere jógee Makkata dikk ci ndigale Useynu doomu Ali ibn Abi Talib te xam nga ni waaye dëkk bi meloon ci moom nit ñaa nga dajee ca moom di jaayanteeg moom ci kër Muxtaar ibn Abi Ubayda as-Saqafi Nu'maan ibn al-Basiir dal di yëg loola tuuma jooja mbir mi xaw a doy waar ci moom waaye nag yàlla def taxut Nu'man ibnu Basir mënoon a yenn jéego yi mu ci bëggoon a yëkkati loola sax wax nañ ne xibaar bi bi mu demee ba yegg ci Yasid ci lañ folli Nu'man ibnu Basir ca fa nga xam ne moom mooy Kuufa waaye ñu fal kii nga xam ne moom mooy abdullahi ibnu sayad abdullahi ibnu sayad mii nag mooy ki nga xam ne bi mu ñëwee kuufa dafa def benn kaala gu ñuul ndax dégg na li fi xew Yasiid jot na xibaar bi folli na Nu'maan ibnu Basiir ndax yéexantu gi mu yéexantu ci bañ a attaqué Husayn eh, Muslim ibnu Aqil am na ci riwaaye ñu ne Yasiid daf koo wax na rey Muslim ibnu Aqil yónnee ko bopp bi ak ñu ànd ak moom waaye dafa bañ loola mu dal di ko folli fal Yasiid fal ki nga xam ne mooy Ubaydallah ibnu Sayaat ibnu Sayaat nag bi mu ñëwee ak kaalam gu ñuul dal di làqatu ba ñëw ba dugg pale ba daldi di dindi nag muuraay bi léegi bi mu dindee muuraay bi ñépp dal di tiit mu dal di ne asalaatu jamaa asalaatu jamaa wootekat yi dal di woote ne nañ daje ñun ñépp ci jumaa ja nit ñi daje ci jumaa ja mu daldi leen xutba wax ak ñoom ci lu rafet daal di leen tëkku ci ci képp koo xam ne aji rafetal nga mu digla la rafet rafet koo xam ne aji ñaawal nga ci seen nguur mu digla la ak ñaaw ñaaw mooy ab mbugal loola nag muslim ibnu aqil daal di ko dégg <coughs> soxloo ca kër gëm nekkoon <coughs> muy kër maxtaar dem ci kër aani ibnu orwata bi mu demee ci kër aani ibnu orwa moom muslim ibnu aqil fekk ne bindoon na ab leetar yónni woon ko ci Useynu ànd ak Abbas ibnu Abi Sabib as-Sakiri da ko wax ca leetar ba na ko fa inna raidu la yukasibu ahlahu wa anna jamia ahli kuufa maaka wa qad baayi ani minhum samaniyata asra alfan fa hajji lil iqbal mu dal di wax Useynu ne ko gannaaw bu gaa yi jaayante woon ak moom njëkk Abdullah ibnu Sayad di falu ci dëkk ba njëkk Abdoulaye ibnu Sayaat dal di ñëw di def xutba gi booba fekkoon ne mu bind leetar ba leetar ba àgg Ousseynou jàng na leetar ba mu wan ko ne ko lañ la waxoon yépp dëgg la waaye Kuufa ngi ànd ak yow kon nu départ na mu ngi ñëw waaye mbir mi soppeeku na. bu ko defee Seydina Ousseynou noonu la den doog a bindee leetar am na ci riwaaya ñu ne balaa muy bind leetar booba dafa dem ca. julli ñaari rakka ca rukunul yamaani ak maqaam ibrahim dal di def ci boromam subhanahu wa taala ci leetar yi nga xam ne waa Kuufa bind nañ ko ca ki nga xam ne waa bind nañ ko yebal ki nga xam ne mooy aani ak Saïd ibn Abdillahi mu dal di ca leetar ba gannaaw bismillah rahmaani rahim min usayn ibn ali ila mala'in min almuminina walmuslimin amma baada fa inna aanian wa saidan qaddima aliya bi kutubikum wa kaana axira man qaddima aliya min rusulikum wa qad fahimtu kulli alladi ixtasastum wa sakartum wa maqalata jullu annahu jullukum annahu laysa alayna imamun fa aqbil laala allahu yajmaa bina yajmauna bik li ëpp daal ci seen wax yi mooy da wax ne amu leen imaam naa jubli ci ànd ak yéen Seydina Useyni bind ca lettre imaam daal gëñ naa ci sama dund ne mal imaamu illa aatimun bi kitaabi alqaa'imun bil qisti daa'inun bi diini alxaqi aasiru imaam du dara lu mooy koo xam ne dafay àtteewoo ci téereb yàlla bi gaaw bakkanam ci yàlla waaye tamit dundal sunna diina woo diina ji nga xam ne mooy diina yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bi mu kasee lettre bi nag dal di ko jox muslim ibnu aqil muslim mu ngi nii di génnee makka jëm kuufa ci maanaam bi nga xamee ne weeru koor a ngi bëgg a jeex wax nañ ne ci weeru suwaal ci juróomi fan ci la dëggu kuufa ba mu yeggee Kuufa wàcc ci kër Muxtaar ibnu Abi Hubayda Asaqfi boobale jamono ki nekkoon amir ba ca Kuufa mooy Nuxmaan ibnu Basir Kuufa nag njëkk Nuxmaan ibnu Basir danaa leen tuddal lu mat fukk ak ñeent ci ay buur yoo xam ne méngoo woon nañ ko ku mel ni Saad ibn Abil Waqaas nekkoon na amiru Kuufa Amar ibnu Yaasir nekkoon na amiru Kuufa te xam ngeen Amar ni jege woon ak Seydina Ali Abu Moussa al Asari nekkoon na Kuufa te xam ngeen Abu Moussa mii ni jege woon ak Seydina Ali ba tey Mughayrat ibnu Saabin mii nekkoon na amir ca Kuufa ndax bi Seydina Omar di génn àdduna moom la fa bàyyi Seydina Ousmane ñëw folli ko walid ibnu oqbata mi nekkoon na amir ca Kuufa saad ibnu al aas nekkoon na amir ca Kuufa amarat ibnu saab nekkoon na amir ca Kuufa oqbatu ibnu omar nekkoon na amir ca Kuufa xardata ibnu kaab al ansaari nekkoon na amir ca Kuufa said ibnu saydin ibnu omar nekkoon na amir ca Kuufa abdullah ibnu omar ibnu al aasi nekkoon na amir ca Kuufa sayaad ibnu abi nekkoon na amir ca Kuufa daak ibnu qaysi alfiri nekkoon na amir ca Kuufa abdurahman ibnu usman ibnu abdillahi mii tamit nekkoon na ko gannaaw si nag ci la ko basir nekk nu'man ibnu basir mii moo tombe ak muslim ibnu al aqil bi nga xamee mu ngi dugg Kuufa ci ñeenteewal ci juróomeeli fan ci weeru suwaal wàccoon ca daaru muxtaar ibn abi abd a ah, dégg nga ibn abi ubayda a ah, asaqafi moom la fa fekkoon mu nekk koo xam ne moom gaa ñi dañoo jaayante woon ak moom waaye tamit ñu faloon ko mu ne fa ci ndigalu muawiya ci ndigalu yasid ibnu muawiya bi nga xamee ne nag dégg waaw waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Oustaz Jibril kon ni nga ko waxee rek ñu taxawu foofu eh, ci tomb bu am solo mu Abdullah ibnu Zayat doxalinam bi nga xam ne doxalil na ko ak Muslim ibnu Aqil ak stratégie yi mu doxal ba jàpp Muslim ibnu Aqil ba rey ko booba fekk na Useynoo ngi ci yoon di ñëw Useynu yëg na deewu kii nga xam ne mooy Muslim ibnu Aqil waaye ndax loolu yokkat loona xuseynu ibn ali wala déedéet dafa dogu ne dafay dem bi mu demee ba yegg it nan la doxlanteeg ak ñam fa fekk nañ lañ reyee xuseynu biñ ko reyee ba noppi nan lañ daggee ay cëram fan lañ sul cër ya insha allahu ci beneen tomb ci kàttanu yàlla bu ko temps bi mayee rek ñu xuus foofa yeggali ko ndax xam naa ne li ci desoon bëriwut asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kullu amin wa antum bi xayri lu ci dëng rek ngeen jéggal ñu ko xam ne ci ñun la lu ci jub ngeen xam ne ci yàlla la wa ma aradtu illa islaaha wa ma tawfiq illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu